Habib Aidara ñu ngi lay nuyu. wa maa ngi leen di fay. Mhm. di nuyu seen auditeurs yi ak di nuyu aussi clients Senelec yi. ñuy wax suñu auditeurs yi ne ñu ngi dalal tey kii di secrétaire général bu Sutelec muy syndicat unique euh, des travailleurs de l'électricité euh, monsieur ay dara ñu gis ne da ngeen fësal benn communiqué di ci wax euh, wala sax di ci ñaawlu benn scandale bi ngeen gis wala bi ngeen jàpp ci contrat bi am diggante Senelec ak Akilee lan moo waral ngeen wax ne scandale la. waaw li tax ñu jàpp ne scandale mooy contrat bi ñu ngi ko signé woon depuis février deux mille dix-neuf mhm. te bi ko signé ñun yëguñu ko woon mais bi ñu ko yegee au mois de mars ñun man personnellement dem naa seeti directeur général ne ko ñu de contrat bi ëlëm nañu ci liñ ci gis. Mhm. dañ ci bëggoon waxtaan mais biñ ci commencé waxtaan ñun ma ne dañu bëggoon waxtaan bi daal ñu yaatal ko ci biir Sénélec. Mhm. ndax am na suñu yeneen moro naatangoo syndicaliste yu nekk ci gi dañu bëggoon ñu yaatal ko. Mhm. ndax juróomi syndicat moo nekk Sénélec naam sax suñu bos mooy nekk bu gën a mag mais am na ñeneen ñu fi nekk. effectivement mu di convoqué benn réunion le mille avril 2019 à Pullman mhm. ñun syndicalistes si ak moom ay collaborateur am di ay directeurs ak waa Akili ñu dem Pullman mhm. mais ci benn fan dañu jàppoon ne mënuñ ci woon càmbar contrat bi ñu wax ko ne nañ def atelier boo xam ne ñetti fan la effectivement bi ñu defee ñetti fan mhm. direction générale bu Sénélec tout directeur yu bëri ñëwoon nañu waa Akili ñëw ñun ñu ñëw ñu waxtaan ñu laaj leen ay laaj yu bëree bëri laaj yooyu am na ci juróom rek yu ma si mën a tënk muy benn bi ndax Akilee mii ñu jox contrat bi mën na liggéey liggéeyu Senelec mhm. loolu tontu woon ñu ci te jàpp nañ ne mënul nekk ndax tey jii ci biir contrat bi ñu ngi ne Akilee dafa da ñu ngi ne Senelec moom mooy jox ay nit yoo xam ne ñooy defal ak li liggéey bi di leen poser ay compteur mhm. ñaar beneen si question yi nga xam ne yu question yu yu am solo la mooy contrat bi est-ce que amal na njëriñ état wu Sénégal est-ce que amal na njëriñ Senelec est-ce que amal na njëriñ ay ay client wu Senelec ak est-ce que amal na njëriñ ay liggéeykatu Senelec mhm. loolu yi tamit tontu ñu ci tontu bu dal suñu xel mhm. ñu leen di laaj aussi marché bu toll nii cent quatre-vingt-sept milliards est-ce que biñ koy def dañoo jaar ci passation des marchés déedéet jaar ñu passation des marché ñu laaj leen aussi contrat bi est-ce que du am gàllankoor ci tey ji courant bi ni nga xamante bi ñu ngi koy joxee ba nga xam ne coupéetul defatul xuyu xamaj comme avant mm-hmm. parce que état bi def na xaalis bu bëri ci Sénélec pour que vraiment courant bi doy ñu mën ko yóbbu fu nekk ci Sénégal ensuite est-ce que tamit contrat bi du am jeexital ci liggéeykat yi nga xam ne ñoo ngi daan seen doole si biir Sénélec di dem di yóbbu seen njaboot loolu aussi joxuñ ñu ci lu leer parce que am na liggéey yu bëri yoo xam ne dañ ko doon dindi ci loxo Sénélec jox ko waa Akilee donc question yooyu yëpp bi ngeen ko posé jotuñu si tontu mais leneen li nga xam ne moo ñu ëlëm mooy si biir contrat bi dañ ne ak li ñoom bëriwuñu xaalis donc Senelec moom moo leen di garanti ci banque yi pour ñoom ñu dem lebi xaalis donc dañuy dem lebi xaalis dem fa Senelec daan jënde compteur ñoom ñu di fa jënde compteur li ñuy jënde compteur moo gën a cher li Senelec daan jënde compteur ensuite bi ñu dellusee ñu ne lépp loo xamante ne lii Akilee def na ko ci investissement naanaam génne xaalis dem jënd ko Sénélec da leen koy remboursé benn Sénélec dina leen remboursé lépp lu ñu def ci projet bi Sénélec jox leen ay nit yoo xam ne ñoom ñoo leen defal liggéey bi maanaam posé leen compteur yi ba pare bu bénéfice amee nag ñu séddoo ak Sénélec ñu ne mais loolu nag dafa ëpp parce que yow mii def sa projet yaa war wut sa xaalis dem wut sa garantie bancaire wuti sa xaalis jënd ñëw après boo boo wóoloo sa projet bu ñu amee bénéfice nga ne man lii laa ciy am ñii li am mais non seulement yow dañ lay lebal xaalis ñun ñoo koy ñoo lay garanti yow dañ lay defal liggéey bi ñun ñoo lay posé le contrat ensuite ñu séddoo bénéfice bi te Senelec am na ay ingénieurs yu xerañ ñoo xam ne seen xam-xam màcc na pour def liggéey bi nga xam ne jax nañ ko akkili mhm. donc loolu moo tax ñu ne wax dëgg yàlla depuis début bi ba léegi nag ñun to saa yu ñu sonn ñu di leen wax ne d'accord wuñu dëgg la depuis début ba tey tayu leen sonn leen waaye mën nañ jàpp ne lëkkaloo bi yéen ak seen direction la woon lan moo waral ngeen toog ba tey di def communiqué di yëglu pour opinion bi. waaw non tooguñu ba tey parce que boo xoolee man si ay rajo ak ay télé def naa ay plateau. Mhm. xëy na léegi nii la affaire bi gën a siiw. Mhm. parce que directeur général bu bees bi bi mu ñëwee. ñun dañ ne ko yoo de am na loo fi fekk ndax am na contrat bu lëkkale Senelec ak Akili. Mhm. ñi ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon waxoon nañ leen ne ñun de contrat buggoon nañ ci am ay leeral moom mu ne ñu dinañu tontu boobu ba léegi tontu wuñu ñu nekkoon ko nag yow il faut que tey jii nga lettu ñu wala ñu firi ñu nga firiñu waaye moom bi mu xoolee ba biir xam ne ñun liñ doon càmbar ci contrat bi ak di ko ñaawlu. Mhm. moom gis na ko ci la ci commencé wax moom. ñu ne ko nag ñun leen rek moo ñu jaaxal mooy ñi àndoon ak directeur général bi nga fi wuutul. Mhm. démb ak bërki démb defaroon contrat bi ñuy ay directeur directeur yooyu yëpp ñu ngi fi kenn changé wul directeur général rek moo changé te ñoo ñu jàpp nañ ne démb bokk nañ ci ñi xelal directeur général bi fi nekkoon pour que mu signé contrat parce que bi ñu demee sali directeur yooyu ñoo fa nekkoon doon ñu wax naan contrat bi baax na nañ ko signé bàyyi leen bu leen wax et tout ça directeur yooyu démb tey ñoo wëlbatiku ñi waxoon waaw démb tey ji ñoo wëlbatiku àndaat ak directeur bu bees bi nekko ko déet parce que contrat bi baaxul. loolu aussi yaakaar naa ne nguur gi war na ci jël ay motukaay parce que Senelec tey ji caissier bu détour bu amee manquant cinquante mille wala cent mille bu dee détournement dañ lay dàq ñii nga xam ne dañoo engagé Senelec ci ay milliards ci loo xamante ne teguñu ko ci yoon ñooñu aussi war nañu xool seen degré d'implication naka la ñu laale ak taqe ba ñu signé contrat bi pour ñu demander leen ay explication ñu tontu. ay dara tey yëglu ngeen euh, ci communiqué ndax mën nañu euh, xaarandi seen plan d'action euh, bu dee seeni autorités yi ngeen di interpeller yënguñu ci li ngeen leen ci woo. waaw tey de dafa mel ni contrat ak li bi rek moo fës. waaye ñun li nga xam ne ne nekk na yeneen contrat ci biir kër gi aussi ñu ngi koy wax nañ ko saytu mm-hmm. am na contrat bu ñuy wax contrat ak Excelec boo xam ne ay milliards yi milliards la moom tamit ñu ngi koy gëstu boobu tam nee nañ nañ ko saytu am na contrat bu ñuy wax BLF brigade de contre la fraude mm-hmm. kooku tamit Senelec def na ci ay milliards te ñu dara am na beneen contrat bu ñu def ak waa EDF in EDF in benn filiale la mel ne maanaam benn pàcc la boo xam ne Euh, kuréel giy def affaire comme Sénélec bu nekk France moom la ñu jox leen li nga xam ne moom la ñu wax fraude bi ci Sénélec Sénégal ñooñu bi ñu ñëwee ñu njëkk a dawal ba càmbal contrat bi ci digganteel bi ci ci ci ci à mi parcours ci digg bi gis nañ ne Sénélec génne na deux cent millions fay ko kuréel googu te ñooñu dugaluñ ci keesu Sénélec lu dul vingt millions loolu aussi contrat boobu war nañu ko xool contrat ENSIC le nouveau système d'information clientèle war nañ ko xool contrat assurance bi nga xamante ni bii ñun bu ñu retraité xaalis bi ñu war a fay dañoo signé benn contrat ak assurance jox ko contrat boo xam ne ay xaalis bu dul jeex moo ci nekk contrat boobu aussi boobu ba léegi ñu ngi leen di laaj naka la tëddee ak lan la ci Senelec di gagné lan la ci agent Senelec di gañe gisaguñu ci loolu am na tamit ay agent yoo xam ne ci toolu xare bi la ñu gaañu ñu par accident de travail wala ñu des de balaataa ñuy retraité uh-huh. ñooñu ñu ci desete woon depuis janvier deux mille dix neuf ak deux mille dix neuf bi yëpp seen njaboot yi ñu ngi tumuranke di toltolaan parce que Sénélec moo jël seen xaalis dox ko assurance boobu ba léegi assurance nanguwu leen fay donc contrat yooyu yëpp la ñu bëgg xool ko mais bu dara amee da ngay dem seeti ki nga xam ne moom nga ko seqal nga waxtaan ceeg moom su ci deful ay jéego nga daal di alerter alerter mooy maanaam nga daal di yëglu te bii moom mooy yëglu nañu suñu yëgloo sottiwul aussi ci la ñuy dérouler yeneen action yi nga xam ne moom la ñu wax ne moom la ñu def ci biir plan d'action tey jii ñu wax ci leneen nguur gi jël na dogal ne day fay li nga xam ne moom mooy facture abonné tranche sociale ci diiru ñaari weer ndax loolu tàmbali nañ ko. waaw loolu de xanaa da nga ko waroon laaj directeur commercial wala directeur général bu sene Sénélec. Uh-huh. mais am na lu ma ci xam as laaj ci loolu. mën muy mesure bu sociale boo xam ne ñu ngi koy saluer euh, ñi nga xamante ni ñi seen facture yi ñu ngi ko waroon a fay le six wala le onze avril mm-hmm. te nga xam ne ñooñu seen consommation boo ko nattee ci ñaari weer koy rafetlu wax dëgg yàlla mesure sociale bu baax la mm-hmm. léegi nag commencé nañ ko ñëpp ñi nga xam ne dañoo amoon facture ndax seen la ñaari façon client la am dafa am ñoo xam ne facture lañ am am ñu am woyofal ñi nga xam ne seen facture ñu ngi ko waroon a fay ci weer wii ñu nekk muy mois d'avril mm-hmm. te seen consommation ëppul deux cent cinquante kilos ci ñaari weer yi ñooñu dañuy effacer seen facture duñu ko fay mais bu ëppee deux cent cinquante kilos nag dañoo war a fay mhm. maintenant bu fekkee ne dañoo fayoon ba pare xaalis bi ñu fayoon dañ leen koy defal ci seen biir compte wax ne am ngeen fi nangam mhm. suñu amaatee beneen facture ñu dindi ko si ñi nga xam ne weer wii di ñëw la ñuy fay mooy mois de mai ñi nga xam ne ñoom ñu ngi leen jox seen facture nii mhm. ñooñu tamit képp koo xam ne sa consommation ëppul deux cent cinquante kilos ci ñaari weer yi mhm. da doo doo fay facture boobu maintenant ñi nga xam ne ñoo ci des nag mooy borom woyofal yi fal yi moom weer wii di ñëw lañ leen di dugalal seen crédit kenn ku ci nekk bu fekkee ni kër ga parce que bërëb liggéeyukaay yi bokk si mhm. kër gu ci nekk dinañ la defal sa quota jox la sa crédit nga dugal ko maintenant si biir loolu nag niñ ko defee ñun en tant que syndicaliste parce que syndicaliste buggul lépp loo xam ne injustice la mhm. dañu jàpp ne équité dafa waroon a jox képp koo xam ne kër nga rek mhm. ñu dindil la sa deux cent cinquante kilowattheure même bu fekkee ne da ngaa dépassé deux cent cinquante kilowattheure la ca tege nga war a fay mais tey jii ko am deux cent cinquante et un kilowattheure te fekk ne yow dépassé woo nombre fan bi doo bokk ci mesure boobu ñu jàpp ne loolu vraiment injustice la waroon nañ ko corriger Mhm. mais loolu nag sama position la en tant que syndicaliste. te itam wax nañ leen ko tamit fañ ko war a waxee. ci mbirum redevance yi nan lay demee ndax état da leen di fay dans l'immédiat ndax gis nañ ne tamit am na benn bor bi nga xam ne mu ngi fi ba tey état yoreel ko Senelec mbaa lii du gën a euh, rallonger lii di seen dette. bon dañoo jàpp ne xaalis boobu ci xaalis bi jóge ci collecte bi ñuy def ci Covid bi la ci lay jóge mhm. te ci biir loolu aussi ma wax ne ñun agence Senelec ñun ñuy liggéey Senelec joxe nañ ci suñu wàll. Mm-hmm. ndax agent benn bu ci nekk da nga ne man dindi leen ci sama salaire aslëf ñeenti weer pendant ñeenti weer weer bu ne ngeen dagg ma nangam ngeen dagg ma nangam ba mot ñeenti weer loolu biñ ko dajalee mot na deux cent millions ñu joxe ko muy suñu participation ci ci ci ci pandémie bi ma ci ma koy rafetlu nag liggéeyu générosité waa Sénégal yooyu agent yi. di wax ne nag xaalis bi moom jàpp nañ ne dañ ko war a fay comptant loolu lañ ñu wax nee nañ ñu xaalis bi bokkul ci bor bi nga xam ne moom la état bi amee Mm-hmm. mais ci fonds normalement ci la war a jóge ñu war ko verser mm-hmm. mais xam naa ne boo jokkoo ak euh, autorité Sénélec yi ñoom dinañ la ko gën a dinañ ma ko gën a leeral jëm ci li nga xam ne moom ngeen di liggéeyee muy relever compteur yi agent yi nekk si terrain bi tey jii nan la ñuy liggéeyee ci période de pandémie bi. waaw xam nga compteur yi ñuy relever moom yu ci bëri sax euh, mu ngi ci mbedd mi. Mm-hmm. donc kii ñëw di relever du am benn contact ak client bi day ñëw rek taxaw ci mbedd mi relever compteur bi dem. mais même yeneen conducteurs yi nga xam ne mu ngi ci biir kër gi. Mhm. ñun ki agent yëpp am nañu masque am nañu mini yoo xam ne moom lañ leen jox. te tamit bu ñu demee wax nañ leen ñu respecté mesures yi nga xam ne moom la ministère de la santé digle mesures yooyu moom la ñu jël ci suñu kees yi moom la ñu jël ci suñu accueil yi ba kenn ku ci nekk rek bu ñëwee actuellement da ngay takk masque te da ngay am distance réglementaire entre yow ak ki ngay xam ne moom ngay waxal pour que vraiment ñu fexe ba nga xamante ni contamination bi du jaar ci agent Senelec vraiment loolu aussi ñu ngi rafetlu disposition yi nga xam ne direction générale jël na ko di rafetlu aussi taxawaay bi si agence léegi taxaw ndax tey jii ñun ñu ngi takk suñu tubéy jigéen ñi takk seeni sër pour que ñi nga xam ne ñu ngi toog ci kër yi ci confinement bi ñu bañ a am benn coupure courant mën a seetaan seeni télé taal seeni ventilateur am seen internet loolu aussi ñu ngi ciy jaajëfal agence Senelec yi ñoom ñi nekk ci naaj bi ba loolu mën a nekk monsieur Aidara ñu lay jaajëfal bu baax a baax. waa kay merci maa ngi leen di jaajëfal di jaajëfal aussi seen auditeurs yi. Habib Aidara secrétaire général bu Sutelec syndicat unique des travailleurs de l' électricité doonoon suñu gan tey jii